la santaane ci ay melokaan ki ni mel day melowoo automatiquement ni ñu koy waxee la xadiisu al man salima al muslimuuna min ba mu jeex la xadiis boobu di santaane ci ay melokaan yu ab jullit mën a mel ku melowoo melo yee rek da ngay daal di melo melowoo melowoo yi fa saase su boobaa it mën a jël aayab innamal muminuuna ixwatun def ko comme ab maanaam aw lay wuy dollee dëgëral wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doonte dëgëroon na kon incha allahu danañu jéem leeral lool yi lu tolloog lañ ci xam ci kem noonu mu jàppaloo euh, ci suñ biir waxtaan incha allah tomb yi ci desit dees na ci tudd ci tënk lu ñu mën a yóbbaloo doonte moom it am na ak jege lool ak li ñu tudd léegi mbokk yi suñu jëloon tomb bu njëkk bi rek bëgg cee waxtaan ci yaatal doon na doy sëkk ab tem doyoon na temu boppam sëkk doy ab conférence euh, waaye ñu tënk rek incha allah mbokk jullit yi diine ji nga xam ne yàlla baaxe nañu ko ñu juddu ci diine woo ko muy islaam diinay ifaal la ak laa tafaal mooy defal lii bàyyi lii du diinay ifaal ma maanaam defalu la sopp lépp diine mbokk yi ñaar yi rek la mooy ibaadaat ak muamalaat ibaadaat bu ñu ko waxee mooy lépp lu ñuy tudde ak jaamu yàlla nay julli nay woor nay joxe asaka nay aj màkka nay yeneen muamalaat mooy lépp lu ñuy firee ab jëflante diggante mbindeefi yàlla yi nay jaay nay jënd nay leb nay leble nay embauché nit di ko liggéeyloo di ko fay na ngeen société bokk di liggéey nay yeneeni mbir man nag su ma seetloo mbokk mi tànn tombub a diinu usnul muamala te muy diine dëgg-dëgg suñ koy wax mooy rafetal ab jëflante ki ko doon tànn xuma kan la waaye yaakaar naa moom euh, mu waxan ci doon na gën a jot gën a yit leer ci li ma ci bëgg a wax man ndax moom mel na ni ku mën a tànn ab tem la mbokk yi man ak diw ak diw xëy na mën nañoo bañ a ama mën nañoo bañ a am benn jafe-jafe ci li ñuy tuddee ibaadaat ndax waxtu julli jot nga dem jàpp julli amaana sax nga dem jàkk ja ramadaan ñëw nga woor sarte aj daje ci yow nga dem màkka yii jafewul yii jafewut waaye jafe-jafe bi dëgg-dëgg ñi ngi koy fekk ci biir jëflante yi bi may tudd léegi li ñuy tuddee ibaadaat te mooy lépp lu ñuy tuddee ak jaamu yàlla di ko misaal ci lu mel ni julli ak woor ak azaka ak aj makka ak yeneen xëy na mënees na koo tënk ci yoo yi su dee dañ koo bëgg a teqale ak li ñuy tuddee muamalaat muy wàllu jëflante waaye ibaadaat mbokk yi ci prix mu matale gën naa yaatu loolu kon bu ko kenn xatal ba jàpp ne wàllu jëflanteek doomu aadama yi amul ak jàppaloo ak jaamu yàlla lépp lu yàlla gërëm ci ay wax wala ci ay jëf ya ca feeñ ya ca nëbbu ak jaamu yàlla la nay dem ca jàkka ja julli nay fonk ab dëël bañ a fausse rendez nay dimbale sa mbokkum jullit ci aajoom nay yeneen ak yeneen mbokk jullit yi addiinu musnul muamala képp koo xam ne saw ci diina ji dang koo yemale ci li ñuy tudde ay sha'air maanaam fonk julli juróom fonk joxe asaka mën a dem màkka fonk jàng alxuraan fonk saraxe li baax baax li yooyu baax baax su dara desee lu dul nag na jëflanteek sama moroomi doomu aadama yi rawatina say mbokk jullit nga bëgg a génne fonk kàddu ci jaamu yàlla bëgg a génne kóllute ci jaamu yàlla bëgg a génne dëggal ci jaamu yàlla jël wuuteb dig jël wor jël ay nar def ko comme ab gidd bu lay wommat di la teete ngir nga mën a àgg ci sa njariñu bopp rek képp koo xam ne nii mooy aw déggiinam ak doxiinam ci diina ji na yëg ne doonagul dëgg dëgg jullit doonagul dëgg dëgg jullit boo xam ne tur jullit dëggu na ci moom jamono jii ñu nekk nag dafay jamono joo xam ne sàmmonte ak jëflante bu rafet tumuranke na lool ko waxee jamono jii dafa doon jamono joo xam ne mel na ni sàmmonte jëflante bu rafet tumuranke na lool mu doon jàngoro joo xam ne nag bépp xeet wum tisaaroo am nañu kirisu kirisu ay jikko réew mii ñu nekk wax dëgg yàlla loolu yaatu na fi lool ci misaal lu mel ni gergu yaatu gi nga xam ne ñu ngi koy gis ci wàllu gu ne sababoowul ci lu jëflante bu ñaaw jeexiiti bañ a rafetal jëflante mbokk yi mbokki jullit yi dadul yam ca ña ko seq rek waaye dafay doon lu law ba loraale koo xam ne loolu du jikkoom nit dana baax lool sàmm lool te du tax kaneen sawar a jëflante ak moom rawatana jëflante bu xaalis amu yoon ngir lay tax du sawar a jëflanteeg ku mel noonu mën naa am mas naa séq ak jëflante kum wóolu lool far ay wor mujj ca xam naa daal ab julit su déggee bu wér ne ab responsable la ci kanamu yàlla ci lépp lu muy wax wala mu koy def dana génn dana dana génn ci boppam ak pas-pasam ki ne dund gi bopp sa bopp la dana génn ci boppam loolu dana xam ne ak jullit warta doon koo xam ne day am pas-pasu ne dund gi daal moom bopp sa bopp la kenn ku ne noo mën a def ba sa aajo faju mën nga koo def doonte da ngay lor keneen suñ boroom nee na fa wa rabbika la nasalannahum ajmain amma kaanu yamaluun mi ngi wax ak yonente bi ne ko waat naa ci sa boroom ne doomu aadama yi lépp lu ñuy def ay responsable lañ ci danañ leen ko laaj bu ëllëgee xam maa kaanoo yaxmaluun alayhi salaatu wasalaam nee na woon kullukum raain kenn ku ne ci yéen ab sàmm la te boo ëllëgee danañ ko laaj li mu doon sàmm wa kullukum masulun an raayati yow mbokkum julit sa diine li mu la sant mooy nga rafetal ni ngay jëflante keneen ak ku mën a doon doon doonte sax ab yéefar la waaye ne kii man kii may jëflanteel gëmul yàlla jërul may sàmm kóllute sama digganteeg moom njuumte lu rëy rëy la aaya bi lan moo ko tax a wàcc inna allaha ya'murukum an tu'addul amaanaati ilaa ahliha keroog bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam duggee màkka ak mbooloo mu bari ngir def lu ñuy wax fatxu màkka mu ñëwee fekkoon na caabi kaaba gi nekkoon ci loxol kuñ daa wax Ousmane ibnu Talhata usmaan ibnu Talhata bi yonente bi bëggee dugg ci kaaba gi mu mel ni jot caabi ji dafa xawoon a jafe Seydina Aliyu moo foqati ci moom caabi ji daa di ubbi jant bi dugg Ousmane ginnaaw bi mu ne moom bu xamoon ne Muhammad mooy laaj caabi ji du ko téye mu mel ni am na ay xel yu jàpp ne caabi ji waruñu koo joxaat alxuraan daal di wàcc addu ci loolu na inna allaha ya'murukum antu tu'addul amanati ila ahliha yàlla nag lim leen di digal mooy kóllute moom delloo leen ko seen boroom kon caabi ji na delluwaat ci loxo loxoy kim nekkoon ngën ji misaal ci rafetu jëflante mooy sayyidina muhammad alayhi salaatu salaam benn bis toog na ci ay saxaabaam ab yahut bu ñuy wax zaydu ibnu soxna ñëw daal di xuus ci mbooloo mi ba àgg ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam daal di jàpp ci mbub mi daal koy poñe fekk na boobu yonente bi mbub mi sol dafa ñagas mu poñe ko ba mu xaw a xeerandi baat bi ne yow muhammad fay ma sama bor bi fekk yonte bi daa am lu mu ko leboon te fekk sax waxtu mu ko war a fay jotagut mu ne ko Muhammad fay ma sama bor bi yéen banu Hachim ñu mën a téye bor ngeen Seydina Aliyu wala Seydina Amar daal di jug daal di boj ci jaaseem daal di ne ihsan lii bi darbihi wala bi darbi unuqihi xam naa buñ ko doon firi comme firim jamono ma xaw naa nuroog li gaa yi wax njox mu ndigal ma def ci moom su Omar la wax alayhi salaatu wasalaam daan ne ko déet Omar du noonu na ko da ngay dal ne ko da may digal wala da koy digal mu rafetal ni muy fayo bor man tam nga digal ma ma rafetal ni may fayo bor xoola boobu rafetu jëflante alayhi salaatu wasalaam alquran nee na idfa billati hiya ahsan fa ida allazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim suñ la defee lu ñaaw dellool lu rafet boo ko seqee sam noon day mujj moom noon boobee walbati ko di sab soppe ka annahu waliyun xamim xoolal góor yàlla gu mel ni Sëriñ Tuubaa radiallahu anhu fi mu jaar noonu yàlla yi ak fitna yiñ ko teg te doo fekk mukk muy ñaawee ci wetam la muy seq ak ñoom ci wàllu jëflante nan ngay dégge xafawtu anil aadai xafawtu anil aadai turan li wacci man nafaahum li xeyri sarmadan lastu adfaaw muy jéggal naa noonu yépp ngir jëm yàlla loolu noo koy déggee lu dul yaatu dënn ak jëflante kon mbokk yi li ñuy tuddee conscience te ñu mën koo firee yëg-yëg bi doomu aadama di yëg mu koy aaye mu def dara wala mu koy diggal mu def dara nit ku ne rawatina jullit bi war na ci moom waxtu wu ne mu di ko contrôler ba xam mi ngi dund wala déet ndax nit su fexee ba yar boppam yar bakkanam ci pas pasu ne lii muy def wala lii muy bëgg a def wala li muy wax nii mënta doon mukk kumpa yàlla mi ko bind noonu muy bàyyee xel yàlla da koy def mu mujj doon sàndarma boppam ba saabu bu ko bakkanam wala bànneexam bëggee oo ci lu dul dëgg day mel ni dafa am lu nekk ci biiram lu koy seexlu loo loola loolu nag xéewal gu rëy la gu rëy rëy la gu jara sant yàlla ci képp ko yàlla defal bari na lool ñu dugg ci lislaam te porte biñ jaare mooy rafetalu jëflante ka leen ca doon woo réewi Afrique yu bari Sénégal gi ci la bokk jaas yi dugalu fi lislaam waaye ay commerçant yu daa jóge ci biti di fi ñëw di dugg ci réew mi ah, ñoo fi gaaral islaam ànd ak seenu rafetalu jëflante ñi ñu fi doon fekk loola xemem loo leen islaam waa réew mi ñuy dugg ndànk-ndànk ba diina ji mel fi ni mel nii tey kon koo mën di séqal ci wàllu jëflante fexeel bataaral ko ci dëggu ak ci maandu alquran nee na wala yajrimannakum shanaanu xawmin ala alla taadilu noonu aw nit wala bañ aw nit bu mu leen xiirtal ngeen bañ a maandu idilu huwa aqrabu li taqwa maandu leen ndax maandu moo gën a jege ak ragal yàlla su loolu jàllee mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon al muslimu aqul muslim laa yazlimuhu wala yuzlimu wa man kaana fi haajati aqihi kaana allahu fi haajati wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyama kon kon ci fàttali xadis bu yonte bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne jullit jullit mooy mbokkam bum ko tooñ bum ko seetaan mu tekk ne képp koo xam ne ñu ngi ci aajoy mbokkam suñ boroom dana nekk ci aajoom waaye itam ku dindil ab jullit njàqare yi fekkee ne képp koo xam ne dindi dindil na ab jullit njàqare su boroom dina ko dindil njàqare ëllëg ci njàqare yowmal xiyaam mu fekkee ne tam ku suturaal ab jullit yàlla dina ko suturaal adduna ak àllaaxira muy xadis bu riis kaar muy wane ne lislaam diinay yërëmante la diinay dimbalante la diinay suturaalante la def lii yonente bi sallallahu alayhi wa digle ñoom julli di ñu def ko ci la ñuy fekk seenu bennoo ci la ñuy fekk seen kàttan waaye tam ci la ndimbalul yàlla di wàcc ci seen kaw kon jullit bu ne dafa war a doon pas-pasam ci ne jullit bu mën a doon mbokkama jullit jullit mooy mbokkam ak fu mu mën a askanoo bu dee jullit la rek daa war a fas ne kooku mooy mbokkam moom jullit boobu ndax lislaam lim jàpp mooy jullit yi ñoo di ay mbokk comme ni ko yàlla waxee innamal mu'minuuna ixwatun te mbokku diine dafa gën a foor mbokku askan su dee ki nga askanal bokku leen diine abu lahab gis ni mu jege woon yonente bi sallallahu alayhi wa ci askan te taxul muy dëgg-dëggi mbokkam fa yàlla nga xool ku mel ni bilaal ibnu rabaax ni mu ko soree ci askan bokkuñ sax ab der te muy mbokkam fa yàlla mbokki julli di aayab innamal mu'minuuna ixwatun ku ko dégg doo xalaat doo xalaat benn yoon di ŋàññi ab jullit boo bokkalut mazhab muy am ngir wala ngeen juuyoo ci ay masala yoo xam ne nekkul ay keno ci diina ji kon li ñuy gis léeg ci ak foñante aku bañante diggante lenn ci jullit yi nga xam ne dañoo wute ay xalaat ci ay alaat yoo xam ne ni ko waxee léegi ay ponk ci diina àgg léeg-léeg sax ci kenn ci ñoom di jàppe ka ca des ab noonu loolu mbir mu garaaw a garaaw la loolu dafay doon benn widd dafay benn widd diggante jullit koy exploité na di ko jariñoo mooy noon bi te su ma waxee noon bi weesuwul kii xeex diine jullit jullit mooy mbokkam waaye du ab noonam li am mooy dañu bokk ab noon amul nag lu gën a mën a dooleel seen noon biñ séq seenu teqale ñoom ñi waroon a ànd kon wanante ginnaaw geeg ñaanante gi ak ñenn ci ñoom di jàpp ne ci des ay noon doonut lu liggéeyal noonu cosaan bi rek moom moo ci gañe xeet bi di ci perte jullit balaa ak njullitam a wér day def mbokkam jullitam ni boppam comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe mu ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li aqihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yéen ak ngëmam du mën a mat lu dul lim bëggal boppam la bëggal mbokkam moo tax ñu naan sa bopp wala sa mbokk sa boppa jullit loolu moo war a nekk yi pas-pasam su noonu xelam du xalaat benn yoon lor di bàyyikoo ci moom jëm ci benn julit alayhi salaatu wasalaam nee na woon ak julit day doon koo xam ne julit yi dañuy mucc ci ayu làmmiñam mucc ci ayu loxoom waaye itam mu tekki ne aji gàddaay dëgg mooy ki gàddaay li yàlla aaye al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man haajara maanaha allahu kon jottali koo julit ci jëw ci xas wala loraange di bàyyikoo ci soloxo loxo jëm ci moom ci anamuk tooñ bokkul ci màndargay jullit bu ak njullitam dëggu waaye tam ak jullit dafay doon noonu lépp lu yàlla aaye jullit dafa war a lépp lu yàlla aaye ndax li yàlla aaye def ko loraange lañ ciy fekk waaye di ci fekk njariñ benn yoon moytu li amul njariñ tam bokk na ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabire bépp jullit bim ne min husni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yahnihi bokk na ci lii rafetal diine nit ki mu bàyyi lu ko amalul njariñ loolu moom dafa mel ni jamono ji moo ko moo sax booy seet muy jamonoy Facebook ak jamonoy WhatsApp ñaata ñaata ñoo lab ci géeju réseaux sociaux yi xew jamono rawatina WhatsApp ñaata waxtu ngay sànq sa dund ci lu loo xam ne du la indil njariñul àdduna waxuma la njariñul àllaaxira ay groupe whatsapp yu dul jeex benn bu ne nga bëgg doon am membre doo noppalu ci diglu ak di yónnee ay message ak yi vocal te li ci gën a garaaw mooy temps bi nga ciy def doo ko yëg muy waxtu yu bari bari yuy sànku ci lu amul njariñ mbokk yi nañuy fàttaliku ne nañuy fàttaliku bu baax ne waxtu lu seer la te li ñuy fàggu lépp muy mu di ñu njariñ moo xam njariñul àdduna wala njariñul àllaaxira ci biir ay waxtu rek lañ koy def kon wax du lu jar jox àqam la Sëriñ Tuubaa nee na wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya mahal xayaati walaw suwayatan faqat li yamalu tanfaahum in xabalu ñi faatu fañ tëdd bu doonte boo leen fëggee ñu jukk boo leen laajoon ne leen lan ngeen gën a bëgg fii nga tëdd la ñuy wax duñ la tontu dem àjjana wala mucc ci bëggalum yàlla wala leen benn tontu lañ lay wax mooy delluwaat àdduna liñ bëgg mooy delluwaat àdduna donte as caa lañ fay am ngir ñu mën a def loo xam ne suñ dilsee dana leen mën a jariñ kon ngir sa diina rafet bul jëmale sa itte ci lu dul ci loo xam ne du la andil njariñul àdduna lu dara wala texe ak àllaaxira ëllëg mu bokk nag ci tegtale néewug jëflante bu rafet néewug ñaar ñii rawatina jamono jii te ko tudd ci nax ñaar ñooñu mooy mbokk mu dëggu ak xarit bu dëggu bim ne wal aqu wal aqu xaqa wal qalilu sidqa andaru min kulli xalilin xaqa mu ne lii néew li ci gën a néew mooy mbokk mu dëggu ak xarit bu dëggu ndax kum ci mën doon ci ñoom su dëggoo ci li ngeen séq dafay yemale boppam ak yow te léeg-léeg sax muy def li ñuy tudd isaar te mooy gënal la ci boppam di lor boppam ngir nga jariñu su dee loola moo lay indil njariñ yow su la jamono wanee ak ñagas mu boole lu am ngir sa mbir yéwén waaye tam muy suturaal lim xam ci yow te du rafet ngir rek nga yëkkatiku kon nag ñëpp ñaar ñu yàlla lëkkale ba ñu mel nii war nañoo yëg xiiwalug yàlla ci ñoom te sant ko ci tey góorgóorlu ci lépp luy suuxat ak dëgëral ànd bu rafet boobu yi mbokk yi buñ fàtte ne képp kuy jokk ak mbokk yàlla dina la jokk waaye dan ku koy dogit yàlla dana la dokk alayhi salaatu wasalaam nee na woon arrahimu muallaqatun bil harsh taqulu man wasalani wasalahu llah wa man qataani qataahu llah nee na ak mbokk ci boppam dafa doon luñ aj luñ wékk ca kaw aras muy wax ne képp ku ma jokk ah, moom ak mbokk mooy wax loolu képp ku ma jokk yàlla jokk la waaye ku ma dog tam yàlla dog la léeg-léeg Euh, am na nag benn fenêtre bu seytaane di jaar doomu aadama yi léeg-léeg ba leen xañ jokku mbokk te moo di iqta man qataak mooy dogal ku la dog ku dog daal dog ko ndax dafay am ci nit ñi koo xam ne yàlla boole na leen ak mbokk amaana yow da nga fay dem wala da ngay jokkoo ak moom ci jokkookaay yi xew jamono te yomb lool waaye moom du ko def ci sa àq ni nga koy defee mën naa am laytoo ak ñàkku jot ba ci sax amul sax jot sax am waaye li gën a yomb muy ab message ak nee na amul jot gi xay na su doxee noonu seytaane mën na la diine la dangaa ñàkk fayda defal ni moom nga daal di dégg ndee la def ni moom buumug jokko mbokk googee tàmbali dog loolu mën naa dem a dem ba yàgg lool ak umpante daal nekk seen diggante loola di law ba indi sax seenu njaboot bu ñu xamante waxuma laak di jokkante demante toppante boobu ci diggante dog ak mbokk loolu du jikkoy yaaram di koy yaaram mooy jëfe di yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne sil man qataak wa ahsin man asaa ilayka ku la dog jokkal yow ku ñaawal jëm ci yow rafetalal jëm ci moom ndax da nga yëg ne lii bu la ko seytaane firilee ne ak ñàkk fayda la dalaa bëgg a yàqal rek waaye soo defee li nga war a def yow ci sa rek nga wers teewul nag su la yàlla nattoo ak mbokk mel noonu xëy na day boroom daraja xëy na day boroom alal xëy na dafa am yeneen wàccuwaay teewul nga war a wane ak xarañte gu mat sëkk nag ci biir ba ngay dox mbokk googee sa digganteeg moom xarañte guy wane ne dana yëg ne moom alal ji wala wàccuwaay bi ko yàlla jox muy daraja wala muy alal wala muy laneen nga xam ne ay cër la yàlla di séddalee di ko jox ku ko soob a na ko soobee na yëg ne daal moom lii taxut waaye yow lii ngay def da koy def te yàlla tax danga koy def ngir ne ndigalul yàlla la looy jëfe rek kon li fee buntu sokkul sa digganteek sa mbokk luy tax mënoo faa dem wala mënoo jokkoo ak moom amoo aw lay ci dog dégg nga sa diggante ak moom mat naa bàyyi xel lool nag mbokk yi xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne laysa alwaasila bil mukaafi walakin alwaasilu allati isa qutia rahimuhu wasalaha nee na du jokk kotu mbokk kan koo xam ne day fayantoo mooy koo xam ne maanaam moom daal da ngeen koy deflante rek dangay ñëw mu soog ñëw boo ñëwut du ñëw da koy woo mu soog laa woo boo ko wut du la woo moom daal dañu koy deflante rek yonte bi nee na du dox kotu mbokk kon mbokk yi tomb bu ñuy jeexale mbokk talibé yi mooy ma fàttali sama bopp fàttali leen ne diina jii di lislaam ay jikko rek la diine ji lépp ay jikko la ngir taaral ay jikko rek moo taxoon yàlla yónni yonent ak islaam moo ko wax alayhi salaatu wasalaam moo ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla dama yónni ngir ma jàngale ngir ma mottali jikko yu tedd yi moom mii alayhi salaatu wasalaam ci ay jikko la yàlla tagge tagg wu rëy nag du ne ko wa innaka yow muhammad la ala xuluqin yaa ngi ci ay jikko yu màgg-màgg ku jikko nga sang yëpp ñi fi sange ñëpp ci ay jikko lañu sange ñi yilif misaal mi la gën a jege mooy Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu soo jëloon may yi ko yàlla may ak jagle gi mu ko jagleel li mu ko jagleel soo jëloon yooyu teg ne jël ay jikkoom yu rafet ataan ko doomu aadama loole rek mën na koo jox wàccuwaay bi mu am ci xol mbindéef yi wépp xeet wu ñuy tagg ci ay melokaan yu rafet ay jikko rek mooy nattukaayu tagg woowee su fa jukko yu baax nekkul dara lu jar tagg nekkatu fa moo tax waykat ba ne woon innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum sahabu xeet yi ay jikko rek lañ li fekk des nañoo seen jikko yu rafet di des di ay xeet yu matu xeet su fa jikko yu baax yi jógee nag aw xeet nekkatu fa doonte jëmu yaa nga fa mbokk yi ñoo ngi jéggalu ci guddal gi lu ci jub noo ngi koy sant yàlla ci ndimbalam ak taw fi xam la jube waaye tam lu ci dëng it noo ngi ci doglu ngànt tëri ci jébbalu ci man mii rek la jógee noo ngi baalu xàq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdou Akim Sylla jox nga ko déggee danañu jariñ àdduna danañu jariñ alaaxira ko dégg te topp ko jërëjëf suñu xol sedd na lool jërëjëf ñu sant bu baax nag tabarkàlla